mbokki Sénégal yépp mbokki àddina bi yépp maa ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a tedd mu di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu tey jii maa ngi yëkkati sama kàddu niñ ko daan baaxoo def léeg-léeg waaye kàddu tey gi nag dana wuute ak kàddu yi daan yëkkati ndax kàddu tey gi dana bari ci biir wala sax lépp xëy na buñ ko tuddee ci problème bi nga xam ne moom la réew mi di dund fii mu nekk ci diggante jàppal ak bàyyil ci diggante l'opposition bi ak pouvoir bi te mu gën caa fés président Macky Sall ak monsieur Ousmane sonk seen diggante ak réew mi ak fi situation bi toll duma wax ne li ci ëpp walla li ci des lépp mystique la waaye ngir yëkkati niveau bi boo ne mystique day am ñu ci bëgg a bokk te duma leen ci boole kon dama naan maa wara a tabi'a maa wara a tabi'a nag euh, moo gën a kawe li ñuy wax mystique mooy métaphysique déng-déngi naa lu bari xalaat na ba tàyyi ci wet gi ndax waxe ci jar na ko wala déet ndax di ci xalaat yu baree bari waaye dama mujj jàpp ne ak ñi nga xam ne ñi ngi wax ak man fu sori wala fu jege gis naa ne mënuma cee ñàkk wax ci wet gii ma wax jéemu ma it ci biir wax ji àtte ñaar ñi nga xam ne ñoo seq coow li waaye damay téye yat wi ci digg bi bañ a jàpp ci benn cat benn xikma boo xam ne suñu baay bu baax sëñ Modou Ndiaye Mouhamad Ndiaye Rachid ñu koy wax sëñ Modou Rachid sëriñ Fàllu daf ko joxoon village Touba Mirina mu yore ko lu mat fanweeri at wala ñaar fukki at ak ñett te tubaam Touba Mérina ku xam njëgeej dëkk yu baree baree ko wër aju ci moom mu amub naanuwaay ba ndox jafe amub marché ba daje jafe lu ne di fa xew sëñ Fallou dénk ko dëkk bi mu yore ko dib sëñ daara waaye nag dib chef de village xikma bi ma jële ci moom da daan wax ne Moodu de moom attewut day jubale suñ ñëwee indi jafe-jafe te jafe-jafe bu ñuy tudd ci réew mi rek daanaka mën nañ ne daana am waaye bu kii bëggee wax bu kii waxee lim liñ ko def kee moom itam miim mbaa ñu wax ba eggal mu ne leen Moodu de attewut day jubale su ngeen nangoo ma jubale leen baax na su ngeen nanguwut nag ma bàyyi leen ngeen dem gendarmerie waaye bu waxee ñoom ba eggal ñoom ñëpp dañuy nangu walla léeg-léeg bu xawee tëddee bañ dem gendarmerie buñ demee dañ naan leen ndax jaar ngeen ci sëñ Rachid buñ ne waaw ñu ne sëñ Rachid moom bu fekkee mënu ci dara euh, duñ ci man dara loola jaaxaloon na ma waaye gis naa ne kilifay diine yi doxin woowee la ñuy dox maa ngi door a xam nag léegi lan moo taxoon ñuy jubale te bañ a àtte kon ginnaaw muqaddima bi nga xam ne moom laa jiital damay wax ne yaa siyaadatal rais président Macky Sall maa ngi lay tënkal tuuti ci métaphysique wala maa wara a tabia bi pour wax ak ñi nga xam ne seen niveau kawe na ñu xam ne li may wax du ay làmbatu kii mu séqal mbir mi fa dëkk ni ma xame kajoor ak bawal ak njaambur laa ko xame foofa dëkk booba ak ruq booba la tàmbalee fa gën a jege muy ñombaatu maa ngi mas a nekk kër El Hadji maa añ suñang góor gu baax nitu yàlla li tàmbalee foofu ba ba ngay dem Gàmbi ba ba ngay dem croisement Diaroumbe ba ba ngay dem Tanaaf ba ba ngay dem Sédhiou ba Goudomp ba ba ngay dem Saameen Balantakunda nga xam ne ci frontière u Guinée Bissau ak Sénégal la boo jógee Saameen yaa mën a dem dëkk bu ñuy wax Farajangatu jóge fa dem dëkk bu ñuy wax yaram diggante boobu def naa fi ñaari at yoo xam ne samay mbokk xamuñ fu ma nekk welo laa daan jëm ko jël comme moyen de transport sareet sax amul fu mu fay jaar pour wax la ne xam naa foofu kon euh, monsieur Ousmane Sonko mii damay jàpp ne am na njuumte moo xam bu rëy laay wax wala dama naan am na njuumte rek noppi bala maa jàll dinaa wax njuumteem démb wax naa ci kilifa koo xam ne yaakaar naa kilifa la war a doon ci moom ban wax lu bari Ousmane nag musuma nuyook moom fàttalikuwuma ko te yow président yaakaar naa ne bi ngay door a toog sa ñetti at yu njëkk wala ñaari at njëkk yi toog na ñetti yoon yu tegaloo wala yu soreewut kon lii ma la gis sax gisewuma ko Ousmane sonk Ousmane erreur am bi ma jàpp ne erreur la man na maa juum nag mooy dafa ubbi ñaari front en même temps fi nafsi al dafa ubbi ñaari front benn front bi mooy Occident wala ñu ne France benn yoon beneen bi ci des nag mooy pouvoir politique bi wala ñu ne régime bi foofu damaa jàpp ne bu fekkoon monsieur Ousmane Sonko bu wanee nit ñi ne yéen a ngi toog ci montagne or ba noppi xiif yéen a ngi toog ci tefasu gaz ak pétrole ak lépp ba pare di taal mat walla courant buy xuy gamaj mu waxe ko noonu wane ne France moo ñuy sonal moo ñu war te ñu wàcc moo ñuy muucu bi mu waxee lool laa ne ah kii de xëy na électoral bi lay waxal ndax bu waxee lii danañ gaaw a daw wër ko waaye su ma doon moom du ma wax lool ki fi nekk te sénégalais yépp teg ko fi ma jàpp ne mënul dafa war a wàcc joxe kon moom rek laay wax ak tëleem muy lay di indi ay argument ne tëlewu ma ba kenn ci ñoom ñaar daan bu boobaa bu toogee te fekk yàlla moo ko moo koy moo ko fi teg bu doxalee mandaam bu njëkk képp mën na wekki pièce par pièce pièce li fi France moom ak nim ñu def pièce par pièce ba ñu jeexal fi tàkk ñu xëy rek ñu gis ne France génn nañ ci moom wala génn na ci ñun waaye bu fekkee ñaari front la ubbi mu mel ni dafa défier France benn bi ci des mu jàkkaarloog euh, euh, pouvoir bi ñaari front yooyu laa ne erreur la ci moom léegi nag yaa siyaadata rais Macky Sall li ma lay conseiller en tant que ab citoyen ab imaam laa buy julli ca jumaa ja ñëw dellu si ci daara ji bu amee lu ko ñetteel mooy wàll ji ndajeem diine dellu si waat toog awma beneen bu ko ñeenteel kon awma fu may far lu dul ci réew mi ak ci diine ji li ma lay conseiller mooy front boobu nga xam ne mooy France nga xam ne daa mel ni Ousmane da koo défier bum la utiliser mukk bul ko dimbale mukk seetaan ko te xam ne yaa jiite réew mi yow lañ tànn nga nekk fi argumentel sag man Ousmane sonk argumenté sag tële ba fu réew mi àttee kum jox nga toog loolu jàpp naa ne mooy li nga xam ne moo jig réew mi moo la jig yow itam moo jig tam Ousmane Sonko te dimbale front boobu nga xam ne moo di France loolu fooyee safara la te safara gone doo nga koy fooyee te buñ ko fekkee dañ koy daal di def lu lu rëy ndax xam ne ci danger la nekk kon xam naa ne yow li nga xam macha allah bañ teg la fi ak li ngay am ci information safara wow doo ci fo wala iyaazu billah yàlla bu lool am kon ngir jeexal président de la république monsieur Macky Sall man imam Khadim Ndiaye maa ngi lay wax ne am na benn xikma boo xam ne ni ma jëlee ci suñu bàyyi xikma bee maa ngi lay dénk bii nga xam ne benn gouverneur ci gouverneur yi lislaam yi ñu koy wax muawiyatu bnu abi sufyaan ñu tegoon ko iraq mu jiite fa daf daan wax ne law anna bayni wa bayna annaasi shaaratan man qataat in shadduha arxaytuha wa in arxawha shadattuha nee na sama digganteeg nit ñi population bi sama digg ak bi su fekkoon ak cunkóor cunkóor mooy ak kawar kawar benn kawar buñ jëlee ci fas wala buñ jëlee ci bu gudd nit ñi jàpp ci cat lii ñoom mbooloo mi man ma jàpp ci lenn cat li nee na cunkóor googu du dagg li tax du dagg mooy suñ xëccee rek damay yolomal bàyyeeg ñoom waaye buñ yolemalee ma xëccaat ndànk kon boo jëfandikoo ma boobu bu coow jibee foo laal rek ñëpp yuuxu nga xool beneen bunt booy jaare boo xam ne da fa jaar te coow du jib moo la gën a jig moo gën a jig itam ñi ngi ko seqale amul benn sikki sàkka ne euh, monsieur le président de la république am na occasion yu bari yu la raw yoo xam ne mënoon nga cee fexe ba taxawee ñaari tànk te ku la naxut xam na ne fi mu ne dangaa jafandu waaye ñaar tànk taxawe woo ko benn tànk nga taxawe occasion yooyu covid bi mayoon na la nga regle lu bari sa digg ak opposition bi waaye occasion ba raw na la bi nga xamee ne dem nañ tam ba 8 mars am ba li xew-xew ku tedd ki ci yàlla na fi yàgg lool te wér Cheikh Mouhamadul Muntaka mu daal di artu artu gu am xikma def ko ci anam gu rafet ñi ngi ko séqaloon nangul ko ko déggal ko diggante boobe itam bi lool noppee doon naa séentu ci sa discours ak ay dispositions yi ngay jël jàppoon naa ne foofa am nga fi occasion bu toll ni régler problème yi ba taxawee ñaari tànk waaye booba dalaa rëcc léegi nag benn kese moo la dese kon bu doon ay barrières yuy tee ñu bañ a am jafe-jafe barrières yëpp romb nga ko yaag ñi nga àndal ba benn barrière moo des ci sa kanam boo xam ne boo ko jéggiwut mën nañoo sauver ñun ñëpp incha allahu taala boobu mooy nga def li ñuy wax tamdiid wala tajil intixaabaat yi mooy élection yi nga puus ko doonte benn weer la wala ñaari weer wala ñett ñu xoolaat ñëpp xoolaat seen dossier ñu ñëw bokk kenn ku nekk loolu population bi eh, eh, wateel luñ la jox ci aswaat mooy ci ay voix nga xam ne loolu nga am